te bi lañu war a mel mel nañu ko waaw ci barke yonent bi lañu war a mel mel nañu ko ndax yonent bi dafa woo Sidina Umar mu ñëw ñu ko dama lay yónni wax ko yonent bi mu ne ko bu ma ko doxee yàq ko mu ne ko lu tax mu ne ko dama ëpp waaye boo ko yónnee Ousmane dana ko jox na mu la gënale nga am résultat na mu la gënale ndax ëppul ëppul man dama ëpp dama naqati moom nag ku tey la ko xam siyaasa boo ko yónnee dina am résultat bu positif foofu la mbax yem ba lenn lu ci ne nañ ko joxe na ko mën waaw ndax wolof nee na fas doo ko jox sa xarit xaritam nga ko jox waaw fas nga ko jox sa xarit mukk ndax bu mënul fas rey ko waaye xaritu fas ngay jox fas waaw moom dana ko topp loolu nag ku ko def rek ah di nga mujj sant sa borom lu ne nga seet fu mu war a tegu rek nga teg ko fa dara ne nekkul tabarkalla tabarkalla kenn lu ci yàlla saxal yàlla dëgëral leen te itam rek lu ne ngeen bañ ko di loolu kay amul amul kéemaan ndax innama ana basharu mislukum qul innama ana basharu mislukum yonent bi gën kaaba gi moo gën it rawdu ba daan na sibbiru loolu naka la tudd daan na feebar loolu naka la tudd yoo xam ne ni yàlla rek yoonam waaw sëriñ mu niru daf daan wax ne luy dal doomu aadama dana dal jamono nee na yow nag yaay seet loo koy faj waaye luy dal doomu dana dal jamono yow nag yaay seet loo koy faj tabarkalla tabarkalla waaye pëtëm pëtëm yi wolof daal mag ñemewuñu ko woon yàlla xam na ko ah bàyyi ci xel rek bàyyi ci xel rek mag ñi dañ daan digle lu baax rek digle lu baax rek digle lu baax rek moom lañ daan def xaj maxtar njaay ngaari bu ndax nee na ma sama bàyyi benn taalibeem daf ko indil fasu naar góor bu rafet nee na ndar yépp topp ci na ba ñu agsi ci buntu kër gi nee na ñu ne ah góor gi de bii yoon xanaa dana génn xool façon waaye taxul mu génn ki ko indi ñëw ni ko góor gi indil naa la fas bu rafet ni ko jërëjëf waaye baal naa la ko lu ko lu tax mu ne ko dama jàngale daara te mënuma ci boole yar fas amee woon jikko wolof rek foofu la ñuy taxaliko mu dem ba ca marché ba jaay fas jël xaalis ba takk ci mouchoir indi ba ci kanamu góor gi mu ne ko kon nag nga dimbali ci xale yi ci seen wàllu lekk góor gi ne ko waaw kay noonu la boole jàngal doomi jàmbur yi ba noppi di wax di leen sàmmloo fas mënuma ko ba tax na mag ñi ku leen roy doo juum mukk tabarkal la tabarkal ku leen roy doo juum mukk nag lu di leen bàyyi xel te yooyu ñu bañ koy xeb waaw ba bañ xeeb loo ci liggéey rek gis njëriñam waaye loo ci appliqué wule du am benn njëriñ tabarakallahu tabarakallahu waaw ñu jàng fatiha bu sell ñu jàng ñetti salaatu ala nabi ñu yéene ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dugal ci sunu soxla yépp soxla yarama soxla biir këram soxla place soxla tukkeet yépp ñu dugal ko ci dem nu ngee ñaanal sunu bokki sécurité yi taxaw mel na yàlla di seen sécurité ñëw ndax bokk nañu ko ci njëlbeen ba nëgëni te loolu rafet na ci leen yóbbante ci seen kilifa yi ñaane lañ leen yàlla yàlla nekk seen sécurité ñoom itam la yàlla defar yépp yàlla bu yàlla yàq dara la yàlla defar yépp yàlla bu yàlla yàq dara la yàlla defar yépp yàlla bu yàlla yàq dara tabarakallahu بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه الذين صدقوا الله ما عهدوا عليه ورضي الله عن المؤمنين في كل بقاع الأرض أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته te li tam sunu ngan yu tedd yi ñu fi am te jóge ci kër bari diine yi tabarakallahu li ko dale biig ba léegi ñu ñëw def teewaay bu rafet ci bisu tey bi itam ñu ngi rafet lu teewayu sunu mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Tall bu góor gi Cheikh Muntaka Daha Tall di rafet lu teewayu sunu mbokk السيد الحاج مالك محسن جوب تبارك الله لكي تجي وحسن يديك بل نطي رزم ليبتجع القرآن تبارك الله ديني تنسن وجه بقص dubu sojak daga canja dinu yi tam sunu wala re bopp di muqaddamu sayyid cheikh ca dina bisawo mu di cheikh ahmed tidiane diop mu mel ni tabarakallahu soxna nag ci mbay wax dëgg yàlla tey Moy yaayu njaboot bi mu ngi toog ànd ak njaboot bi boppam yépp fa tabarakallah eh, mel ni sëriñ ak cheikh alxaaj malik ànd ak seen magu daara mohammad mansour ak seen njaboot ci bopp ñu àndal ñoog ca njàlbeen ba fii fa tabarakallahu bàyyu daayira yi yaayu daayira yi responsable yi yëpp superviseur yi fa tabarakallahu ñuy yore seen ah kenn ku ne ku ne fa tabarakallahu def nga ba def lu mënul ndax yàlla yëfi ñaamuloo lu dul lenn mooy jullit nga te jullit amuloo ku yonent bi sallallahu alayhi wa mu mel ni itam الله بكم ممر تنبو سوليك كان مجي سوك سوليك كان مجي سينيكو نبنيون مام عبد الحميد من نيسوك تبارك الله ويكون دبلو لي ونبيك du jaadoot yi sax nga dégloo ci leneen ndax it ñett rek am kaddu jaamur xam-xamu jaamur ak cëru jaamur ak cëru jaamur ñett yëpp yàlla sédde na leen yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kaddu gëstu lu mu ca war a wax wax na ko xam-xam ba lu mu ca war a jàngale jàngale na ko cër ba ku mu ca war a yóbbaale yóbbaale na la mu mel ni bi mu ci jógee ba léegi nag loolu masul dog am ñu ñu koy donn mu mel ni ñu ko donn ñëpp ci jamono nag kenn ëpp ci ci toogoon ci biir ليس يطفئ أحمد تجاني xam naa yërëm nit ñi ndax sax mu yéeg ba ci yàgg mu wàcca demoon na ko nag parce que itam nag yu bokkul bokkul ay li wolof di wax ne am na ñu nga xam ni du xam ngañ ba sa suuf yi yu mu tudd waaw lim yi nga xam ni lim bi rek ci des li ñu standardé ak ba kenn branché wul ba borom ñëw ñu soog ko branché pour ndokkeel rooxu borom ah loolu nekkul ci téere de waaw أخذتم علمكم عن علماء الرسوم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت ومن يزيد المفهم مفرحا am من يخمي xam ni bu ñu àddoo nga léegi la wàññi doosam sax ndax boobu ñi ñu naw ñëpp dañu daan toog mu wax lu bu la wóor ne assistance assistance bi ñu ko ci xam barewul ndega maam na waaw ndax it këram na ah ngeen gisee biib ma laajte ci biir sursam yooyu la lu ñoo tudde ruuxul idraak ñu di ko tudde sens de la perception lu ñoo tudde ruuxul taadul ñu di ko tudde sens de l'équilibre lu ñoo tudde ruuxul taqdir ñu di ko tudde sens de mesure ba mu ko waxee léegi ci fukki at ak juróom la toll waaw ba mu koy wax boobu ñi sant ci ñëpp ñu ngi topp ونجا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أحوج شيء إلى التعادل إلى معرفة بتجريد إلى علم بتواضع إلى سمو بتفكر إلى غنى بمروءة إلى دنيا بآخرة يونent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy ñëw dafa fekk nit jaxasoo te am na responsabilité bu nga xam ni ku ñu ko dénk boo dàddul boulot équilibre responsabilité du doute fu sore mu ni waaye équilibre bi itam dafa am yuñ xàmmee na ci koy lañu koy mën a seede mooy boroom dana rafleel boppam ci xumb-xumb waaw am na loo xam ni ku ko xam dootoo mën xumb waaw bokk na ci itam ilmun bi tawado xam lu kenn xamul te doo dox ba mu feeñ ci yow waaw kooku mën nañ ko gëm ci moom ba ca des itam mooy suma won bi te fat ko li mu wax fii ci nekk doomu dameel ak nekk doomu buur am na ñu nga xam ni la tax nit ñi fonk leen ay seen xalaat dafa suupewul te ku sa xalaat suufewul foog ngay yéeg waaw moo tax nag seen màggaay du màggaayu dere ba ca des mooy rinan bi mu ruuxa xamul noo ni am na yenn richesse yi du richesse ndax bu fekkee ni richesse ba lu ñu ko xam ci nit mu génnee billet de banque booba du chef, mooy li mu wax ni bu fekkee ni da ngay toog ba nit ki yalwaan ci ñu xam ni am nga wala mën nga booba tardé na ah dañu toog ak ben soxna bu tedd ci kër gi mu wax ñu ko fan yële mu ni moom di kër goo dem di nga gis du fay rang ba mu des bu Cheikh Tidiane ndax bala nga ko rang mu fekk la fa nga ne waaw waaw ah, waaw ah. nee moo tax bu ñu doo tiitaroo ci jamono nana ñu nga rang kër diw nee na man dina am na ku soxlawul ku ko rang ma bala nga koo rang mu fekk la fa nga ne waaw tabarakallahu su koy xinam bi muru a ndeysaan mu fiiree ko fayda wala nekk fayda borom ñàkk fayda waaw waxin la dafay xaw firi la mu nettali woon ci imam junayd waaw yegg ba noppi wëlbatiku nekkaat dongo waaw loolu rek la ci bëgg a wax waaw mu mel ni itam ba leen mujje mooy ila duniyam bi axira adduna jooy soppi njëkk mu jënd àllaaxira tax ma di ko ko laaj ni ko sa gàmmu daaw dama gis lu ma jaaxal tuuti ma ne ko dama gis nga toog te di màggalu juddu yonent bi sallallahu alayhi wa ma ni ko tëb bi nga koy màggal ñu ni juddoom la ñuy màggal bàmmeel baa ngi ci sa gannaaw ma jaaxle nag ku ñuy màggal juddoom te bàmmeelam a ngi ci sa gannaaw bu daw ba la du bii ah, mooy bi ñu def fii mu ni ma yonent bay wane ni rekk fexe na ba diggante àdduna ak àllaaxira frontière amatul léegi circulation libre la waaw mu mel ni nag boobu rekk moo ci mat a bàyyi xel ah ay dafa mel ni yi mu jàngale biig lu ñuy jëlaat la def ko parti par parti seet nu ñu ko jàngaate xëy na am na ci dimension bu nga xam ni sax bosam la dafa bëgg njaboot yi seen xel dal ci ñu xam ni lawoon ca mag ña mu ngi foofu ci moom waaw nga mu leen tudd yépp ci turandoom ci alkibritul ahmar waaw wal abar moom lay wax yonent bi ñaari baat yu ko yu doy yu mu boole xatmiye boobu mu sédd ci cheikh cheikh garde bosom ci cadre wilaya moom yonent bi mu garde bosom ci cadre nubuwa xatmiye boobu ci wàllu jawhar ak tatmim برسالة مهمة بعثت لأتممه mu mel ni mooy li kilifa gi doon junj rekk ndax itam yàlla ci alquran yi ñu tudd yépp comme ni mu ko waxe mu di ay cadre nit mën ca dugg pour man jege boroomam cadre yi bare na waaye itam yàlla ci alquran cadre bu ne nga dugg ca pour jege yàlla dafa am lu ko ëpp mooy nga am kilifa goo xam ni boo réeroowul ak moom fekk yaa ngi topp ci gannaawam fu mu yegg nga yegg fa toog bi ñoo tudd sunna Yàlla nee ku def ku def nangam ci sunna jege ko dina la yomb ku def farata تد غي ادنا بو الاخره دينا لا يوم واو كو ديف نوافل الخيرات جوفيلو يالا دينا يالا ني يويو ييب دافا سوري واخ يوننتي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني رك مو غن cadre bu ne nga dugg ci te xamoon nu mu deme demal ca ka ju dénk cadre ya nga jox ko sa bopp waaw looloo tax nag wàllu xatmiya ci wàllu nubuwa dafa am ñu ci def benn genre critique da defon ni yàlla bu xasse ba def khatmiya ci walu nubuwa ak ci walu risala dotul wara jado ci nit di weddi waaye fekkana ah xana khatmiya kay yàlla ko upp doole mom mi bind te teewul mu bind ba noppi te ñi mu bind am ñu ko ci nanguwul looy tax pour nga mën ko dégg foog nga dellu ci bu'istu li utammima makarim al axlaaq yonent bi ni sallallahu alayhi wa sallam

ku ko wàññil rek tooñ ko ku ko wàññil tooñ ko mais jikko bi aussi kom ni mu ko waxe te comme ni mu ci annaxt sculpture dañ koy façonné rek ba mu mel ni ñu bëgg mais ki koy def sax ak li xam-xam bi li mu koy maîtriser maîtriser am na discipline bu muy suivre moo tax li mu wax ni yàlla yi xew yëpp ak yi yëngu yëpp li ko ci yitteel mooy teggin bi moo tax moom ci boppam mu ni addabani rabbi fa axsana tadibi moo lay xamal ni du ku yar nit rek wàcc du ku yar nit rek wàcc ndax baatu fa axsana fa axsanay tax nga wàcc nga ku pare ci nit te kenn jéppiwu ko sañ nga ni may kilifaam waaye boo yaree nit ba noppi te tanewul kenn nag amal ni yow ma ko yar ca daara ja nga war dellu moo tax baatu adab bi mu tudd moom lañu leen daan wax ci adabul xidma a'azzu min al xidmati nafsiha na ko wax sama mbokk pas-pas léeg mu ni ma bu ma ñëwee ci kër gi fekk fi ñi nekk ci kër gi dama leen di ñee ndax bu ma sañoon li ñu am maam ko mel ni ko bala nga leen di ñee nag foog nga xam lu leen fi bay puisque itam kër gu mag këru nitu yàlla ñaara faam tarbiya ak service du benn waaye nag service bi itam bu ñu orienté boroom mën na dem ba yéegal ko ca tarbiya ba te du ko yëg di way bale kër gi di way fomp meuble yi di way dawal oto bi di way togg añ bi di way fóot póot mi yooyu yëpp mën na nekk service waaye nag yéene borom dina yegg ci sell ba mu génn ci cadre xidma dem ci cadre tarbiya waaw ah. toxoon nag ma ni ko ñeete bi amu ci solo ndax xam nga li sa seex wax biig ci wàllu sayidna abazar li ko yàlla nattoo woon muy dogale nit ñi ba yàlla nattoo ko mu liir ba coono ba mu ca am mënatul nelaw ndax fu mu tëdd mu mel ni dafa dégg baatu liir bi ak ba mu ko bëggee tuub yoon wa ñu ko jaarale biñ ko yóbboo ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak charte ba ñu ko wax te mooy mu dellu ci dëkkam fexe ba ku gëmul woon lislaam mu fexe ba nga dugg ci biir lislaam te ñu jox ko garantie yonent bi pour que ba keroog muy def loolu yàlla du fi jël bakkanam foofu rekk moo am solo xam nga jamono bu ne dangay xam li jamono bi laaj bu jëkkoon nit li mu daan yéene mooy jël njaboot bu bokk ci moom yóbbu kër kilifaam waaye seetlu ngeen ni léegi njaboot boo yóbbu ci kër kilifa mu yàqoo fa muy ëpp mu defaroo fa

nekkatul ci mu defar këram rekk pour ku bëgga a defaru ñëw fa responsabilité mu ngi ci mu defar kër yépp ba ku ne foo yeewoo war faa mën a jële la nga daan jële ci kër kilifa ga loolay tax yonent yàlla Muusa keroog bi mu yërëmee Iblis cadre boobu la dugg de dafay laaj dégg keroog bi mu yërëmee iblis ndax génne gi ko yàlla génne ba mu ni dafay dem ci boroomam pour tinul ko bi mu ñëwee ci sunu boroom mom yonent yàlla Muusa def ni yalla xajoo nga lu ne ni ko xajoo lu ne du tax ku yiw bàyyi ku yiwa di c'est tellement important yalla xajoo nga lu ne xam nga ko xajoo lu ne mooy al yàlla ni ko xajoo lu ne du tax ku yiw bàyyi ku yi mu tas këram mu ni ko te bu ma pardonné iblis ci loolu dama dul xam ndax foofu lay yem wala dina jàll foofu looloo tax nit ñi baatu badat diinu gariban wa sa yacuudu gariban kama bada fa tuuba lil guraba xurba boobule def di ñaari dimension yu bokkul xurba bi dellu ci wàllu jawhar ak xurba bi dellu ci wàllu ard xam nga bu dee xurba bi dellu ci wàllu jawhar moo daloon Maodo ku am ñëpp te ñi nga am ñépp di leen ñee te soxlaatoo fee toog ñu ni lu tax mu ne ànd amatu fi loo tax mu dagg dundam parce que xurba ba daf di xurba gaaya dugg ci jawhar mais du xurbatul masir mais nag sëriñ Babacar moo ko ci ëpp chance ndax moom jawhar bi daf ko faf soppi siyaasa ra'aynaaka من حسن السياسة باسما مع الناس محمود السجايا وهم هم وام نكونا خمني دنا خمني موامل أفير خمين نكونا خمني كو أحرك مموني تدوم منا فخي بجلكو فموني indi كو fi waaw xamuloo nit ñi yàqule ñépp mooy bàyyee seen bopp nit ñi ba ñu jëlee leen fa ñu indi leen fi ñu ne waaw dafay am xam nga moo tax baatu source bi mu wax mas naa ko dégg bis mu ni Moustapha li yées ci àdduna mooy am teen ci sa kër ba noppi te dëkke mar waaw am ci kër ba noppi te mar parce itam mar naan xam lu ndox di jariñ mbokkul waaw mar rekk naan ak xam lu ndox di jariñ bokkul loolay tax xam nga li mbokku bindikatu Suisse boobu waxoon le monde est gouverné par la folie des hommes et la sagesse de Dieu folie des hommes et la sagesse de Dieu pour de nit yi ko séq pour mu man leen rëcc ba folie du am ci moom yoon dafa yombul da moom la leen seen góor gi doon wax ci ki porte plainte bi ki wara atte te moy an nafs ak al shaytan al khasm ak al hakam ni bu fekke ni nek procureur amul fofu moo tax mu indi len batu hikma parce que fi ci Sénégal surtout ñi jànge diine ci cadre fiqhu moo ëpp te limu wax ni ki jàngul lu dul fiq bu amul boroom xikma comme maître ci kàmb la jëm waaye itam ki amee xikma bu amul borom maarifa comme maître momit it bu watuwul ci kàmb la jëm lolo taxone imam malik na ci baatu sur dañu ko gis bi mo talif muwatta ñi ñu gënoon a miin ñuy nettale ci yonent bi siitewul ci kenn ni ko lu tax siitewoo diw ak diw ak diw di ko limal mu ni mën naa leen limal li ko tàmbalee ci juróom ñaar fukk ba téeméer ci ñi ngeen miinoon ñu naan qaala rasulullah te amul ci kenn kenn ku ma ku ma jaral ma yàq suma bëccëg parce que qaala rasul yomb na mais préparé la ba li lay jariñ sa nopp bii rek du ko dégg mooy li mu leen junj ci wataayaa udunun waaya mooy li mu leen ni bët sax bu demee ba amatul bu booba nopp yàlla fal ko lu bët daan jariñ bu boobaa nopp moo fay féete moo tax dina bari ku la ma nettali lu bari lu kilifa wax mais li lay jaaxal mooy doo gis lu mu ca tabax ci dundam moo tax nag këru nit yàlla yi ak daara yu mag yi façon boobu mu ko junje biig ni kër ak lu mu rëy rëy bu dee wëli yi fa lañ leen di jëwe bu yàggee kër ga dana gent xamuloo fa tilka buyutuhum xaawiyatum bi ma zalamu ak li mu wax ni màbb pas ba noppi tabax jàkk c'est tellement important pour wax la ne il yi dafay un solo L'autre, looloo tax yàlla def na ci yi mu tere la nit li ñoo tudde azina mu def ci ñetti daraja yu bokkul ku yàlla terale taaru yaram am na waaw